dans le cadre des fonds mouille 1000 milliards yi gis nañu ay points yo xamné li à améliorer parce que rapport bi ni nit ñi recommandation li nga cour bi mënul épingler xam cour bi lu muy bind bu xelam information judiciaire pour mu donc moo tax mu dem léegi nag nak buñ démé euh, si dum euh, euh, mu buñ bu enquête justice mun si justice mun na leer. maintenant bu li teyoon xeli vérificateur bi s'il s'avère vrai. mais là les sanctions du man maa koy wax du si mais ce sont les textes parce que nous avons des textes. Mhm. yo xamné tay dañuy taxaw di la wax nan li boko défé li mo la ci xaar. alors maintenant gestionnaire bu xamné tay dem nga tay ubi nañu enquête et que tu es incapable vraiment de prouver li nga xamné défendre ce dossier convenablement je pense que tu as fauté. alors ci vérificateur yooyu wax nga ko ya nga len don euh, waxal lu lu bax tàggaleen sax muy magistrat yi ko yi def liguey bi et pourtant on a vu que certains ministres wala ñenn ni ci ñu euh, peut-être euh, joxone ay recommandations ñu don jeter le discrédit ci magistrats, yi nga xam ne def nañ liggéey bu mucc ayib ba génnee boobu lekk rapport est-ce que waroon nañu mën a yegg foofu euh, ci mbirum rapport bi lay di rapport du Cour des comptes. man li ma gëm mooy aucun citoyen mhm. n'a le droit et ne doit pas tirer sur l'administration judiciaire. Mhm. su ma conviction personnelle. Mhm. parce que abreu, bu ñëpp di jotee yaakaaruñ kenn lu dul ki war a mhm. maintenant tey bu fekkee man dama bokk tey ci pouvoir moo tax ci wala lii ak wala dañ may wala dañuy politique ki opposition naan dañu jënd juge ba mais fan la ñu jëm mhm. à dire aujourd'hui dans ce pays là il faut que les gens s'arrêtent ñu taxaw tay amna na loo xam ne yow doo ko def du ma ko def fatu du ko def keneen du ko def kenn si ñun ñemewul taxaw am lu mu wax kilifa diine ndax dañ ñu ko yare mais war nañu yar suñu bopp aussi be ken si ñun du taxaw wax ab magistrat lu mu ko war ta ate. parce que moo ñuy àtte war nañ mun gëm ne aujourd'hui parce que amul njaboot joo xam ne ni ñu bëgg ñu mel non la ñëpp mel dans chaque corps il y a des gens aujourd'hui tey ni ni ñu war a mel wala déontologie bi ñu am amuñu ko mais bu mu quand même que ñu tirer sur tout très bien xadi Colonel. mu ngoog euh, alors euh, malgré rapport yi génn yëpp tout le temps tey lan moo tax euh, nguuru président Macky Sall mënuñu tàggali ak coowal manque de transparence ci gestion au denier public mais est-ce que vous avez fait une rétrospection sur les années passées par exemple la gestion du temps de Diouf du temps de Wade.

et une personne comme je dis gis nga fi ñu né ci dëkk bi ñu né question personnelle yow bo bëggee bax da ngay bax mais bo bëggee bonne kenn Mamadou les personnes di xadi di wax les personnes qui ont été épinglées mm-hmm. ci nguuru Macky Sall mm-hmm. euh, amu ci kenn ko xamné inquiété nañu comme kan pour préciser comme kan elles sont nombreuses ah dégg nañu fi ay rapport non dégg nañu fi ay rapport bi rapport dégg nañu fi ay rapport pour des comptes oui rapport Cour des comptes épinglé fi c'est-à-dire le rapport de la Cour des comptes amagul kenn ko xamné rapport parce que rapport bi je parle pas de ce rapport précis des autres rapports yu ko rapport yu fi rapport IGE rapport lire nga ko lan lañu bind lire non je te euh, vous étiez là hein? le président disait que Amna mais j'étais là je écouté comme comme mais faites que la man mon bimoutek man te comme explication ne mu c'est valable parce que xam nga patron des fois mu am lu mu information téye ko du agent yep droit d'explication. vous pouvez pas comparer ah, l'État euh, avec des médias. non non comparaison n'est pas raison. je euh, suis d'accord mais dama euh, bëgg mu non, ci ci sénégalais bi ñuy déglu pour cette comparaison hein, pour parce que xam nga sénégalais bi mën na bañ a xam nu état di doxee. Macky Sall li mu yor moomu ko dañ ko ko denc. non xam naa borom kër gi moom moom këram. donc on peut pas faire on peut pas faire cette comparaison. non non mais dès l'instant que dënk nañ le président Macky Sall réew mi mandat lañ ko jox. c'est-à-dire foofu nag le sénégalais di juume dënk aussi taxul ngay demander nit ki tout le temps quand aujourd'hui boo falee nit jox ko mandat durant tout le mandat tey bu nekhone président mandat bi mu jël façon décret yu ko neex parce que ñun ñoo aliéné suñu liberté jox ko ñoo jël suñu pouvoir dénk ko ñoo jël suñu armée jox ko ñoo jël suñu police jox ko suñu kontaanul si mom ben rendez-vous lañ am ak mom muy élection présidentielle et mononta donc un président a le droit de faire tout ce non bien sûr dans le si li ñu ko si si ko jox alors que dañu am ay kuréel yoo xam ne dañu ko fi teg mu doon ay bànqaas yoo xam ne mooy doxal réew et que autant dañu ko jox mandat autant également est ce que du dafa war a sukkandiku Mais yooyu nga xam ne mooy charte réew bu ma la nee si li def li nga xam ne ci droit mooy pouvoir biñ ko jox moom benn pouvoir lañ ko jox joxuñ ko réew bi yëpp dañ ko jox un pouvoir exécutif c'est ça il faut faire la part des choses maintenant le pouvoir judiciaire même bu vous les moom c'est le euh, euh, euh, conseil supérieur de la magistrature je veux dire qu'aujourd'hui, il y a le principe de la séparation des pouvoirs mais beaucoup de Sénégal yi Sénégal c'est que tey dafa nekk outils d'information et efficace mais ce qui se passait il y a cinq ans ne peut même plus se passer. conscience citoyenne bi toll na foo outil de contrôle yi toll na technique yi ainsi de suite mais amna lo loo nit bu ko don def daw sa reine ñeme woo ko def donc lool yëpp aussi accord yi nga xam ne tek nañ ko fi kuréel yi fi tek yëpp pour mais xam nga dafa am lo xam le fait nga tek ko rek mais avancé la. alors mais ñun waruñ di juger rek avancer justice si ñaata nit a ne ci prison yi. Et pourtant il y en chaque jour naan il faut prison et yi en face. Mm. qu'est-ce que vous voulez ou bien vous voulez nous voir en prison. Si c'est ça, on peut aller vous volontairement. Avez, vous avez des problèmes ah avec les journalistes. Alors, non, non, non, moi, moi non, même, je n'ai aucun problème avec aucun journaliste. Pour, avancer un peu, pardon. Pour avancer un peu, mais en même temps. Euh, c'est juste pour taquiner, euh, mais je n'ai aucun problème. Alors, c'est clair, donc, c'est rassurant. Alors, maintenant, pour pour nous également ci euh, beneen Chow, bon, rapport la nuit rapport IGF les nga indi entre Mambay Niang Ousmane Sonko yow euh, lecture nga am comme comme je dis ça concerne deux Sénégalais. Deux Sénégalais Mambay, c'est un ministre de la République je le salue de passage Nid Koubakhle, Ousmane Sonko pareil c'est un ancien collègue à qui j'ai beaucoup de je vous beaucoup de respect comme ni Moko faral de leen na mooy boole ak Ousmane Sonko mooy bokkuñu parti politique bokkuñu vision bokkuñu lu ñu gëm en matière politique à part loolu gisuma lu war a mën a tax ma yëkkati baat bu ñaaw di ko teg ci Sonko gisuma lu mën a tax ma wax Sonko musiba wala ma def ko honnêtement man bu may défendre je défends des idées Sonko amul je je suis le plus virulent avec lui au sein de de la coalition Benno bokku Yaakaar mais li ma ak mom na ne nañu ak mom té lepp lu wax si non non je vous laisse faire vos vos investigations c'est-à-dire tout ce que suba mun ngeen jël mission ngeen xool li Mamadou Ngom ñaa wax ci Ousmane Sonko yëpp ngeen di pointé lu ci amul dëgg suba ngeen woo non xam nga wax nga ko koo xam ne bokku leen gis-gis bokku leen xalaat vous êtes des adversaires politiques kooku li ngay wax aussi ci moom est-ce que dañu ciy basé wu rek pour def des investigations li ma wax yëpp si moom lu nit di du teg baaraamam la du ay waxu caaxaan c'est-à-dire man wuñ ba noonu sa xëy rek di wax si nit du ma ko def bu ma xamul ci yow dara ma maandu alors donc moo tax ma ne la c'est pas parce que aujourd'hui je suis euh, avec euh, dans la mouvance avec le chef de l'État que aujourd'hui y a un ministre bu boo xam ne jàpp na ne dañ ko tooñ mu dem ci yoon parce que loolu aussi si réewi droit la ñu ne xam nga Ousmane Sonko bi mu génnee di wax ne moom yore na rapport di wax ma euh, ministre Mame Mbaye Niang li mu ko wax yëpp mais ñu bëri dañ jàpp ne li mu wax dëgg la ñu bëri même ci gouvernement bi bu nit ñi foog ne rek ne eh, am na ñoo xam ne sax dañuy jàpp ne ñu li muy wax dëgg la. Ah mais li nga xam ne bu ñu waxee ci yow faatu bés bu ñu waxee ci yow lu jar nga dem yoon si yoon di nga dem ci yoon. Mm-hmm. man si rapport bii sax. je pense que j'ai écrit trois fois des plaintes pourtant aïb chef d'organe il ma woo ne ah, mais mais est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, est-ce que procès Bob viséwul a éliminé un adversaire politique parce que Limouar, je termine Limouar, mu wax Ousmane Sonko wax am dit ñoo xam ne nañu ko yàgg nañu ce rapport là mais Ousmane Sonko dafa yàgg di wax Ousmane Sonko xam nga man tey bu ma waxoon Mame li Sonko wax gëm naa ne sa duñu yegg fi parce que bu ma nara yegg foofu bu ma leeree ne amul ma ne ko baal mu donc Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui aussi dans ce pays Bouy wax aussi na parce que heure bu jógee gis nga likoy top. mais bu féké li koy top yépp dañ japp né li wax dëgg mais bés bu nekkul si deug aussi nañu won ñikoy top yépp né ne ci deug. Lool moy deug. mais c'est pas parce que il s'appelle Ousmane Sonko qu'il peut faire ce qu'il veut Sonko mën na top nit ñi mën na la xass, mën na la saga, mën na la jiñ mën na la sosal

ku ku la waxalate lu dul yoon yóbbu ko ci yoon ndax nga xool ndax dañ li daloon Ousmane Sonko c'était un prétexte am yoon moo am ci dëkk bi c'est ça yow ku la tooñ suba yóbbu ko ci yoon nga porte ko diffamation du am tole bi ah. bi bi dossier bi yëpp am non du ko am parce que nit ñi duñu ah. benn c'est-à-dire aujourd'hui Ousmane Sonko. est-ce que yéen defoo leen yëf yi arme quand même. mais mais ndax tole tole tel tole bi moo am yëpp non je vous dis je vous dis la confidence aujourd'hui honnêtement man li et connaissant Ousmane je vous dis que Ousmane Sonko procès bi sa de ah parce que quand tu lui parles du procès bi bi mu man mom la bëgg lum lay wax sa nangul wax ne duma dem ci mais procès est-ce que la mm-hmm. parce que Ousmane Sonko Sénégalais comme li Fatou ils font tout pour m'écarter mais mon écarté écarté ko gënal ce n'est pas le procès là avec Agissa. parce que man jàpp naa ne li tax ma gëm ne procès ak Adji Sarr dafa wara a am dama né ay doomu jambour ñoo ci faatu si aujourd'hui l'état du Sénégal est fautif dañu wara dal ci kaw état ak ñi ci am responsabilité ñëpp. Mhm. bu dee euh, combine la comme niñ ko waxee dañu man bu boobaa wax dëgg neex yàlla xamatuma dara ci ñi nga xam ne man maay njëkk a taxaw sax di xeex pour que ñu sanctionné. alors papa par rapport ak doomu jàmbur yooyu ci faatu est-ce que procès aji sar Ousmane Sonko moom moo koy leeral wala cette commission. d'enquête bi ñu mettre en place pour éclaircir euh, ci lu ñeel wàllu 14 mois yooyu. procès bi moo déclenché lépp parce que procès bi nit a taxaw ne dañ ma comploter taxaw ne dañ ma bëgg a jël si dañ ma bëgg a jaay doole maa ngi woo ñi ànd ak man maa ngi woo Sénégal ñu ñëw xeexle ma moo taxaw wax bu wootewuloon loolu du am. donc loolu bu amee aussi mais puis da ngeen ko fi dégg yéen a ngeen vidéo yi quand même xam nga man dama bëgg gis nga vraiment dañu dem ba nga xam ne Sénégal ñëpp a dem ba am ba déserté c'est-à-dire tout ce que je dis là je pouvais me taire hein, comme les autres je pouvais me taire y a rien qui m'oblige à parler.

moom mu indi ay preuve am non dama lay jox exemple rek parce que ku mosul dem procès sax mun nañ ko expliquer mu leer su ma moom bu toogee ay avocat yam indi preuve Adji Sarr indi preuve mais juge bi ñeme na ne je condamne Sonko parce que awma preuve mais je le condamne bu boobaa dama la ne ñun ñii sa bokk ci gouvernement bi dañ koy xeexal